par conséquent neewul damay reporter de mu ne par conséquent convocation bi ma convoqué woon la corps électoral pour le 25 février xaatim naa benn décret bu abrogé boobu convocation wasalaam loolu daal la wax parce que man duma APR duma benn Bokk Yaakaar ma Macky Sall mënula muus muus ba waxam may ci yokk dara di rafetal wala di ci wàññi dara noonu la ko waxee ñun ñëpp ko déggandoo nee na dama xaatim benn décret d'abrogation bu abrogé décret ba ko jiitu te fixé woon datu élection yi pour le 25 abrogé naa ko kon dootul le 25 fa la daal di passer le relais à l'assemblée ñun ñëpp ñu riir suñu teleek ak suñu smartphone ñi dem assemblée di déglu waaw assemblée du wax ñoom dañu ne y a un débat houleux yéen ñëpp ko seetaan ba ay gendarme sax dugg fi ñoom dañu ne député yi. Euh, le temps que ñuy leeral lii parce que garaaw na garaaw boo xam ne euh, li tax mu garaaw mooy ñu war a àtte élection yi la concerné kon ñun jàpp nañu ne élection yi dañ ko war a pousse de six mois mu am beneen député bu def amendement defe naa Diop si la mu ne six mois yi baaxul parce que dafay tomber le vingt quatre et le vingt cinq août te loolu période màggal la. soit jour u màggal wala lendemain màggal rax ci dolli période nawet la ñuy fekk te tout le monde sait que ya a région régions du pays zone tempérée bu nawet jotee vraiment génn naan yaa ñuy woote ak di rang di woote euh, c'est c'est injuste par rapport ak ñun ñu nekk ci dëkku taax yi nga xam ne Dakar dafa am ay tali n'est-ce pas am ay rigole waaye fële poto poto la pendant trois mois alors ñu ne Euh, six mois yi ñuy renvoyé élection yi baaxul ñu ne kon lan moo baax beneen député jël kàddu nee nañ ci yokk trois mois kooku yokk ci trois mois mu tombe net le 15 décembre 2024 voilà ce qui s'est passé Macky Sall mënula muus ba ma défendre ko ak waxal ko lu mu waxul nii daal la ko waxe voilà léegi nag Jamra ngi gërëm opposition bi ndax def nañ li leen yoon may mooy saisir nañu ay avocat yoon moo leen ko may ni leen yoon maye woon ñu saisir euh, le tribunal d'instance bu Ziguinchor Sabasy fay jox leen dëgg ni leen yoon maye woon ñu saisir le tribunal de euh, hors classe de grande instance de Dakar kooku jox leen dëgg noonu la ñu saisir la haute juridiction pour contester le décret d'abrogation du président Macky Sall kooku c'est une démarche responsable boo xam ne Jamra nga koy rafetlu parce que ñoom dañuy jël li leen yoon may waaye li Jamra di ñaan nag bu ñu demee ba cette haute juridiction laa joxe atte bu ne élection yi dañ ko war a def le vingt cinq nañu respecter la décision de la haute juridiction bu fekkee juridiction bi dafa wax leneen itam nañ ko respecter kon nag nañuy kontaane ca tribunal Ziguinchor joxe atte bu la arrangé bii yoon tamit lu àtte bi mënti doon nañ ko nangu c'est ça la démocratie loolu mooy appelu jàmm ah su ko defee Euh, dañuy faral di wax naan euh, li Macky Sall toftal ci discours am moo tey seen xel ma ne ko lu tax mu ne dialogue dafa lancé appel o dialogue <laughs> ma ne dialogue ndax Macky Sall la ko moom sanga bu tedd bi Seydina Ahmed après 12 ans d'exil nu mu def ba dugg Màkka dialogué wu ak Khoureyssi te mënoon na leen écrasé Macky Sall moomu ko ma ne leen bi fi fantasiré amoo diggante Ablaye Wade ak le président Abdou Diouf euh, jàmmarloo yu métti yi fi amoon en 88 am ay oto yu ñu taal ba ñu fitnaal ci ñoom Clédor Sène naan de des voitures piégées Kadhafi ñu soupçonné ko ne dafay dugal loxoom ci processus électoral bi di financer des des subversifs fitna jooju continuer continuer continuer ba 92 le président de la République Abdou Diouf dafa woote benn réunion de crise ne waa li xew lan la ba dëkk bi mënu am stabilité 88 ba léegi gars yi ne ko opposition bi nee na sa code électoral bi woolootuñ ko parce que 40 ans ngi nii parti socialiste kenn mënu ko fee jële moo tax ñoom gëm nañu ne élection mënu la fi jële kon dañuy def subversion daal ah comme que noonu la comme ko code électoral bi doyu leen te code électoral dafa war a tëdd njaaxanaay dénk naa Kéba Mbaye rahmatullah alayhi yàlla na ko yàlla yërëm un éminent mu créer benn commission de pilotage pour ñu seet naka la ñuy tabaxaate code électoral bu bees Kéba mbay daal di copter des éléments de l'opposition copter des éléments de du pouvoir copte tamit société civile Jamra bokkoon na ci rado bu Alioune Tine bokkoon na ci ñu ab Latif Guèye moo ñu représenté woon ci commission paritaire ba bref ñooñu ba ñu liggéeyee et je précise que avant ñuy liggéey Abdou Diouf dafa waat kàddu bu am solo daf la ne boo leen pare ba xaatim code électoral bu bees waat naa ne duma ci soppi virgule buy ñëw rek ma promulgué ko ñu appliqué ko gaa yi tëju lëlu nangami weer ba ñu pare ñu laa di am code électoral code électoral boobu nag bu ma leen nettalee soppeeku yu am solo yi ci am mën nañ fi fanaan dama ciy sub jukki jukki ñaar nga xam ne code boobu moo ko waral ñu tuddee ko le code consensuel de 1992 ñaar laa ciy jukki xam ngeen ne bu njëkk ba pour ñi nga xam ne yàgg nañu voté sama compagnie yeeg imam Moustapha boo duggee ci bureau de vote la présentation de la pièce d'identité n'était pas obligatoire da nga daan ñëw rek ak sa rawatina amul photo nga daal di voté su ma paree bu ma paree ma jël carte électeur bi jox ko imam Moustapha mu voté su paree moom mu jox ko jarbaatam mu voté si bien que benn carte vingt 30 quarante personne dañ ci daan voté moo tax nga daan dégg ay résultats yu yéeme masala ñu ne comité rural de Koumpentoum nombre de votants 2000 ont obtenu parti socialiste 4500 voix loolu fa daan am loolu le code consensuel de 92 moo ko réglé ñaareelu point bi et j'en terminerai sur ça parce qu'il y en a beaucoup le passage à l'isoloir n'était pas obligatoire da nga daan ñëw rek dugg ci bureau bi nga jël sa bulletin def ci enveloppe ñëpp di la gis xam koo vooteel nga dugal ça posait des problèmes parce que da daan gis masalan ci euh, euh, ki kaw bi baykat boo xam ne yàgg naa mere état bi ci distribution injuste des engrais et des semences mu ñëw bëgg a voté président bureau de vote bi c' est le président de la communauté rurale mooy joxe engrais moom mu ñëw bëgg a voté contre le régime socialiste te kii mu ngi gis kii <laughs> bulletin nu muy def il fait un faux vote jël keneen voteel ko contre son gré moo tax les résultats ne reflétaient pas la réalité alors bref code consensus bi moo ko réglé jaloo moo ko moo tax nag kon euh, waxtaan woowu Macky Sall la woote euh, te Macky day dem encore une fois bu leen ko fàtte waaye dafa ne balaay dem dana bëgg euh, dernier tolof tolof yi am ci processus électoral yi ñu seet ni ñu koy saafaraal parce que am na ay tolof tolof ngeen système parrainage yi y a beaucoup d'injustice ak coow yi ci am waaw mu ne kon mu bëggoon nag woote dialogue waa dialogue du forcé ñi bëgg a dem nañ leen bàyyi ñu dem waaye yéen ñi dem amu leen droit di duut baaraam ñi demul di leen accuser d'être des des des traîtres ci droit yéen ñi demul itam amu leen droit di duut baaraam naan ku dem traître nga yaay kan kon nañu respectante te xam ne li ñu tax a jóg ñun ñëpp mooy l'intérêt du Sénégal euh, te ñu bàyyi xel ni euh, suñu borom ci boppam. moo xiir jaamam yi pour ñuy waxtaan ak di sottante xalaat euh, bépp euh, askan boo xam ne lànk nga tënku ci boobu principe euh, dund nga ko à tes dépens ndax gis nañ Côte d'Ivoire ci ay waxi nationalité ñu ne Ouattara du Ivoirien burkinabé la c'est cette histoire de d'ivoirité fa fala tàmbale mais après nag ñoo dugal ci yeneen dugal ci yeneen ba mujj gi mu jul guerre civile 3248 morts gis nañu le cas de la Syrie am nañu pétrole am beaucoup de ressources minières waaye foofu yi tamit bi ñuy def les attributions des concessions pétrolières et gazières ñi nga xam ne ils n'ont pas été euh, approuvés dañu génn noonu dëkk ba financé leen ñu daal di jóg indi fa des mouvements des mouvements jihadistes guerre civile bu tar de millions de morts depuis onze ans seen pétrole beeg seen gaz bi fu mu leen feeñ fenn Sénégal ci tournant boobu la ne y a des gens qui sont à l'extérieur et qui nous observent ils attendent la moindre occasion pour def loolu kocc naan ah da ngeen ma xañ ci cere ji ba ngeen di def les attributions de vos concessions pétrole et gazières d'accord du ma lekk si cere ji mais danaa ci xëpp voilà moo tax ñu bëggoon opposition pouvoir joxonte loxo ci wàll boobu pour gérer l'avenir waaye du tere ku ne na nga ngoy ca la nga ngoy opposition bi ki mu jàpp ne c'est le meilleur nañ ci ngoy pouvoir bi tamit ku bees ki war a remplacer Macky Sall ñu jàpp ne c'est le nañ ci ngoy waaye nañu bàyyi xel ne ëllëg on doit préserver la paix